bi sone lu bari jël ko mhm. c'est bon mhm. jërëjëf mbokk réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi nag kii ñu toogal mooy Serigne Cissé bu Serigne Babacar ñu jël si ko war a waxtaan ak moom ginaaw bi ñu fi gëjee yàggul ñuy waajal combat aussi tamit seen diggante ak Siteu waaye tamit dinañ ñëw ci xam-xam bi nga xamante bi nii moom la ko réew mi yëpp nawe macha allah mu ciy bay waaram bu baax a baax lu demee ni seetu loxo gi lu demee ni ay wàllu kayit ak leneen ak leneen ci biir waxtaan bi looloo koy wundu jàpp nan ñaari open de presse yëpp Siteu mi ngi jàpp la 18 fële ca Dionewar Modou Lo mi ngi jàpp la 20 fële ca terre église mu nekk combat boo xam ne combat royal la sëñ bi dañ lay nuyu. Hmm. bàyyi la nga nuyoo mbokk internet bu ko defee ñu ci liggéey bi. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin allahumma yaa munawir yaa fata wanawirul bi nuuri mahrifatika waftax li abwaaba hikmatika wa antur alay xasaa'inu rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir mhm. rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yabqoo xawli bokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne waxtu wi tembe yéen nuy bàyyi xel mhm. rawatina waa diaspora bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara waaye rawatina fii ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal yàlla tawfiq ak sutura mm. di leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum mm. wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ mm. Modou bismillah macha allah bismillah sëñ bi am na solo ci seetug loxo gi nag mm-hmm. ci la ñuy njëkkee mm-hmm. parce que bari na ci ñoo xamante bi nii ñi la gën a naw ci lan la nawee ci lan la respecté mm-hmm. parce que seet la goo xamante bi nii da ngay photo sa loxo rek envoyé te loolu yaakaar naa ne jafe na ci réew mi sëñ bi jërëjëf alaaji Modou faral di wax ne yàlla moo njabootee jaam ñëpp waaye yàlla it moo dimbale jaam ñëpp fa tabaarakallaahu damay wax ne xam-xam nag mhm. tollatuñ ci jamonoy weddi waaw ah. jamonoy gisuma nag ko gisul nag man nga saña a wax ni gisuma waaye mhm. jamonoy weddi moom talatuñ tollatuñu fa mhm. fa tabaarakallaahu yàlla moomee nga xam ne mooy dimbale jaam di ko yenkeewal da ko jox la ko neex di fa maa shaa kaana wa maa yasaa yàlla di ko soob rek lay doxee wax naa ne yàlla maa tey lay doxee Mm-hmm. fa tabarakallahu ndax yàlla ay dugg ci kër fekk fa baay ak doom boole ñëpp rey te sañoo wut yet di ko wër ndax doo ko gis mm. kon yàlla fa tabarakallahu moom yàlla moomee mm. moo dogal ci jàmm bi ñuy wax sëriñ si si bu Seydi Aboubacar si mboolem soxla bu waay mën a am ci àdduna ak soxla ba xamula problème ya namu mu problème nga bëgg koo xam sëriñ si seen sa loxo droite ngay photo boo photo sa loxo droite jox ñu sa trou way jur wu góor ak wu jigéen incha allah mbooleem gàllankoor boo xam ne yàlla dogal na ko mu nekk ci sa yaram moo xam mbiru cat dalaa jàpp moo xam mbiru rab dalaa jàpp moo xam xattaa ba ci sa yaram sa wàllu liggéey dafa doxul te li gor yi di daj yëpp yaa ngi koy daj waaye mm. manoo dajale dara mm. manoo yor dara te loolu yëpp am na gàllankoor yu koy waral ci doomu aadama ndax damay wax ne am malaat boo ko amee balaa nga ko perviser da ngay xam li dal malaat bi lan la mm. ma dolli ca ne ki nga xam ne dafa amee sukkër nga ñëw perfuser ko te xamuloo niveau suukaram fu mu toll nga ñëw rek daal di def perfuser bu dee yaa ko rey mhm. ba ci xattaa sëriñ bi nga xam ne yin nag day liggéey ci mbiru ñaan sëñ Modou mhm. dafa war a xam moom ki malade bi ñëw mooy kan mhm. ak yan yan dimension la toll lan moo tëj ay buntam lan moo tax mënul am xaalis lan moo taxit mënul am jàmm ci biir këram yooyu dañu koy xool xool bi nag fa tabaarakallaahu sa loxo droit ngay photo nga yónnee ko seet nag dafa bëri façon waaw kenn ku nekk façon bi nga koy defee mm-hmm. am na ñoo xam ne tey kurus mm-hmm. luñ la ci wax du mm-hmm. dañ fa tabaarakallaahu am na ñoo xam ne luñ la wax ci wàllu wàllu wàllu wàllu téere yi ñuy wax euh, euh, di seet muy ram la muy saxeer ja muy xel mu nujoom luñ la ci wax du dañ xeetu xam-xam la ah. yoo xam ne des koy jàng yittee koy mayee sëriñ si si mu Seydi Aboubacar ne yooyu yëpp nag Mm. yàlla def na ne peeg nañu ko waaye ci ji jamono mm. sa loxo ngay photo yónnee ma ko mm. mboolem jàngoro ju nekk ci yow buñ la liggéeyee ñu wax la ko bu la cat jàppee ñu wax la ko bu la rab jàppee ñu wax la ko ndax réew mi wax naa ne dafa ci ñoo xam ne bëgguñ ko baax bëgguñ lu baax te bu nu gisee lu baax ñu ngi seet nu nuy def ba kal ko sëriñ si ne pour nga bañ ñu kal la nag dangay xam yaay yaay kan fexe peeg sa bopp nëbbu sa bopp bu la nit bëggee yàqal du yàqu sëriñ Modou Anta incha allah macha allah na solo ba tey dañuy ñëw ci wàllum kayit mm-hmm. Euh, fan yële passé déggante nan mhm. waaye nekkoo ndakaaru si bi mhm. tamit daa mel li ngay voyagé bari na <laughs> dëgg la waaw xam nga ñun ay donga daara la ñu ni ma ko doonee nga doonee ko dafa mhm. am loo xam ne bu njëkkee dugg ci sa jëmmu lii fees sa bët du bari ñaareel ba damay wax ne ndonga daara ak armée ñoo yem boo xasee jaar armée dafa am loo xam ne dootul fees sa bët waaye bu yàlla defee it nga jaar ci daara ci yeneen daara yi tax nag may wax daara dem ca àll ba jàngi yalwaan ak yalwaan li muy def ci nit mooy ne dana waral doo doon nit ku rëy ah, dana doon dana dindi ak ci yow dana dindi yeneen ak yeneen ci yow mm. ba fa tabarakallahu da ngay nit bu simple bu posé wu boo xam ne li koy defee nag mooy fi nga jaar muy ca daara ji mm. yàlla dimbali nu ñuy ay doomi daara yoo mm. xam ne produit wu daara la fa tabarakallahu mbokk mi toog di ñu seetaan am problème mu këyit ah. sëñ Modou Anta dafa am loo xam ne saare gàtt lu waaye ak noo bëri njëriñ lu waay di wari nanga dugg ci téere bii ñuy wax téereb alquran mm. bàqara ba minal jinnati alif lam mim saalika ba minal jinnati wa naa si ñaar yee fa ne mm. waaye mbokk mi may seetaan ci eh, internet bi problème mu këyit nga am sëriñ Cissé ne mbaa yëg nga ne fa inna maal xosri yusran mm. sayaj'alullaahu ba'da xosri yusran jafe-jafe boo gis borom bi day wax ne képp koo xam ne teg naa la jafe yàlla day natt jàmm léegoo léeg natt gi nan lay demee ah dana doon Modou Anta danaa ko teg ay jafe-jafe jafe yi nag am na garaat bu war a ñëw waaye ci bi ma nattoo Modou Anta ndax Modou Anta dana ne u wala teg naa Serigne Cissé ay jafe-jafe ndax dana ne u boo ne u yàlla ne kii kat du waaja waaye fa ina mahal saa su amee nag muy ay xat-xat gi jafe-jafe mm. Mm. jàppal ni nga muñ ko accepté ko yusuran dana ñëw kon dañuy seete alam nasara am na ci lim boo xam ne mag ñi nañ na soixante-douze baax na mm. mag ñi nañ na soixante-dix baax na waaye lim la boo xam ne bii jàpp na bii jàpp na leneen fa tabarakallahu muy ki nga xam ne dafa bëgg ubbeeku mm. dafa bëgg kay ndax fatu na nga xam ne si la lépp ne mm. fatu Serigne Cheikh Tidiane si almaktoom nag daan na wax ne mm. fatu si la lépp nekk ndax fatu si la njaboot gu barke nekk fatu si la xaalis ne ah. fatu si la lépp ne waaye ki nga xam ne dafa am problème mu kayit nekk ca réew ma wax naa ne secret kayit am nañ ci loo xam ne wàllu kurus la kurus ga nag ci tàndarma la ñu koy liggéey jox la ko tàndarma ja buñ ko saraxee yàlla may la kayit bii nag lu ñuy bind la mu doon sangat goo xam ne da nga koy sangoo boo ko sangoo loo dugg yàlla dana ko sottil ndax wax naa ne jafe-jafe day am ci jaam waaye ci biir jafe-jafe yooyu nag fan la ñuy sukkandiku ci saar wi ñuy wax alam nasara lakka sadrak wa wadaxnaa anka wisrak alasian xada sahrak wa rafaxnaa laka sikrak fa ina maal xos yusra ina maal xos yusran fii saa faraxta fansab wa ilaa rabbika farxab sa la ñuy sukkandiku liggéeyal la ci ci liggéeyal boo ko sangoo ak jafe-jafe yum mën a fekk ci yow yàlla dana ko raxas ba mu seet wecc waxuma nag man dinaa ko raxas ah. yàlla dina ko raxas macha allah ndax li tax yàlla dina ko raxas li ma la wax waxi borom bi la mm. du samay wax mm. boo fekkoon ne nag dama ñëw jël waxi borom ba teg fa nekk fi samay wax sax mm. war nga mën a am si ki sàkkay xel mm. waaye fa tabarakallahu yàlla dana defee say mbir ci saar yooyu ñuy wax alam nasara sëriñ Moodu macha allah am na solo ba tey am na ñoo xam ne am nañ kayit waaye tukki nañ am nañ fa cinq ans mhm. dañuy bëgg ñibbisi mais duñ mën a ñibbisi aussi mhm. waa ki nga xam ne defe naa ka nekk ca dëkk ba bëgg a ñëw te manul ñëw defe naa ne day am problème mu fulus fulus nag arabay wax xaalis boo amee problème mu xaalis ndax wax naa ko barki démb di ko wax la Lamine Seck ma ne ko jaamu yàlla bu dee war naa dalale xelam ci boppam hmm. ndax comme que yàllaa wax ñun waxunu hmm. yàllaa ne wama min daabatin fi ardi ilaa alallaahi risquha mboolem jaamub yàlla boo xam ne jaamub yàlla la yàlla am na lu mu ko kontee ñii nag gane nu jamono indi ko hmm. ñii balaa ñoo jot ci seen wërsëg il faut ñu gis ku mel ni Serigne Cissé mu am yum leen defal gàllankoor ye jeex yàlla ubbi seen mboolemi buntu wërsëg kii wadduha wa layli isa saja mhm. mbir la moo xam ne wala ñu def euh, euh, euh, saar yi ñuy wax waqiha mhm. aaye bu nu bind dañuy dugal suy na li naas ba aaye ba jeex ndax mbir la moo xam ne day boole ñaar dafoo la jalbu la waaye dana tax jaami yàlla yi soppu la muy bu buñ la ko bindalee nga sangoo ko fa laaw mu ànd ak suy na mag ñi nag wax nañ ne quatre-vingt-dix-neuf aaye la ñii dañu ko bind ci xobi doogóor ñii dañu ko bind ci alawa ñii dañu ko bind ci papier blanc yi fa tabaarakallaa waaye lépp rek sàkku barke la yow mooma boo ko sangoo yàlla dana la ubbi comme li Modou Anta wax da nga nekk ci réew ma wala fii ci réew mi mm. bëgg ngaa dem seen dëkk waaye mm. ma wax na nag kerek boo ko jëfandikoo yàlla dana la may xaalis di nga am xaalis insha allah macha allah waaw waaw macha allah am na solo ba tey mën a ñëw ci làmb ji mm-hmm. waaye sëñ bi am na ñoo xam ne dañ doon nekk fii mm-hmm. wala ca ma mm-hmm. di ba ci yàgg liggéey bi tagateem bi te da dox lool ba mu yéem leen ñu jekk saay dara mënatul dox waaw euh, sëñ Modou dafa ci am lenn ci jaam yàlla yi ñoo xam ne dañoo am ñii bëta leen jàpp muy làmmiñ ñii raba leen jàpp dégg nga hmm. mag ñi nag dañuy wax ne ñaar moom nangu nañ ko mooy ne bët bu bon am na làmmiñ wu bon am na bu fekkee ne ndaw ñi téeméere ci kale ñi ci ëpp du liggéey leen kal làmmiñ leen kal waaye ki ndaw ndaw li ndaw li cat kal la ya saxli fannahum baat bii ma lay wax la ya saxli fannahum baat la boo xam ne fa tabaarakallaahu li ci nekk ci ay ngëneel bëri na mbaa yënga sëñ sëñ Mour Anta la yastaxlifannahum ñaari nit dañu ñu bañante sax nga boole leen ci baatub la yastaxlifannahum mm. ñaari nit dañu ñu am problème problème ba doy waar lool la yastaxlifannahum ñëw boole leen la yastaxlifannahum baat la boo xam ne nit dana am problème ci biir këram goo xam ne problème na problème yu doy waar la nga bind laya saxli na fannahum ci hmm. ban lim na nga koy bind fa la code ba ne fa tabarakallah waaye mbir la muy régler ci société bi <laughs> code bi doo ko côté déedéet dama koy côté kon baatub lay saxli fannahum mbir la moo xam ne ah. nim mën a boolee ay nit ni la mën a dimbalee nit waaye même xattaa bu liggéey bu bon nekkee sax ci sa yaram baatub lay saxli fannahum buñ la ko bindalee ci lim bañ ko war a bind nga sangoo ko fa tabarakallahu dana baax dana baax loolu ah. waaye ki nga xam ne nag bët da koo jàpp hmm. lammeñ jàpp ko rab jàpp ko fa tabarakallahu tabat yadda abi lahabin wa taba maax naa ba ila axiri mbir la moo xam ne moom it ki ko sangoo buñ ko bindee ci ay xobi poftan mm. buñ paree xobi poftan yi la dañ koy nuggal ba mu nugg nga suuru ci mm-hmm. ba ko ba mu sedd nga sangu ci benn yoon mm-hmm. bu la rab jàppoon wala cat jàpp la wala liggéey jàpp la ak yu bon yi nga xam ne tooke la yi mën a yàqal doomu aadama mm-hmm. yàlla dana ko dindi ci say mbir insha allah ba mu set wecc sëñ Moodu macha allah bala maa ñëw ci làmb benn question laa dese muy jigéen ñi nga xam ne bëgg nañoo sëyi waaye tamit far bu ñu am moom balaa ñaar wala wala ñaari mois mhm. ñu tàqali ko mhm. ak ñi nga xam ne ñi ngi ci néegu sëy aussi tamit mhm. doom di leen jafe yaakaar naa ne foofu laa jeexale dugg ci làmb ji jërëjëf sëñ Modou bërki di démb rek dama koy wax ci TFM soxla yi buñ ko di soxla bi nga amul am na ku ko am te bu sañoon tey mu changé wu am na koo xam ne ñu ngi ko naan maanaam nuñ koy borom alal la milliardaire la yàlla may na ko xaalis mayut ko doom kooka nag bu sañoon tey gis loo xam ne deretam lay doon kooka nag nit kooka am na soxla mm-hmm. bul ko xeebal boobu soxla mm-hmm. yow mi bëgg doom sëriñ ci si mu sëriñ Babacar karne alquran laa lay wax wa samaay wa taarix wa ma adraka ma taarix ba ila aqiri ba saar wa jeex mm-hmm. yow mi nga xam ne da nga am problème mu njaboot lu ne nga dox ci fu ne nga dem fa waaye mag ñi dañ ne nit dana dem ba jël ëmb ëmb bu tuuru ñu ne dañ koo liggéey déedéet dafa am àndaale saay-saay nag dana la bañ waaye dama ne googu jot sax nit ñi amatuñ ko def la lu lay tee am doom waaye rab dana ko def wala ak wéradik yaram ne ci sa biir ba doom mënu fa tëdd yooyu bu amee mag ñi ne bu fekkee ne rab da caa bokk hmm. dañuy bind law anzalnaa haazaa qur'aanan alaa jabalin la ra'aytahu xaashi'an ba ila axiri nee na bu nu ko bindee loola am saafara lay doon bu fekkee nag saafara bu yeggee day ànd ak renu keng renu ngeer xasum xay borom di ko sangoo ci juróom-ñaari bis yàlla dogal ci juróom-ñaari bis chaque jour bu la ngànt feeñuwut yow jigéen ji nga koy sangoo mm-hmm. waaye nag bu fekkee ne li ma la doon wax pour nga takku am doom bii pour wàllu rab la mm-hmm. muy la wa ansal naa bi mm-hmm. waaye wa samaay wa taarixi bi mooy li nga xam ne mooy dëgëral doom toog ci sa am sa biir ba yàlla dogal mu judd kon yow mi ñuy seetaan nga am boobu problème bu la jëmm ji doyee rek wooteel bu la doyu nag bul ko jéem mukk mukk mukk ndax wax naa ne euh, bëgguma daal naan damay essayer ak damay nangam. Hmm. sa conscience tranquille na ci d'accord nga ñëw d'accordul seetal feneen. ndax euh, ñaan lu ngëm-ngëm da ci am solo. Hmm. bu ngëm amu rek fa tabaarakallaa bàqara ba minal jinnet sa aajo du faju kon ko am problème mu njaboot ak problème yéen a man problème moo hmm. fexe rek woonu bonu wooyee la ñu ca man danañ ko ci taxawee ngir yàlla suturaal sëñ Moodu macha allah am na solo xam naa saa ma ñëwee moom dang nga may delluwaat ci alxuraan yi. yaa ngi may <laughs> poussé pour ma nafar. <laughs> jërëjëf sëñ Yodu dañ koy leb ba beneen yoon. incha allah mhm. open de presse yi jàpp nañ ko de. Mhm. fi mu nii moom lii jot jot na moom. Mhm. lii jot jot na ginnaaw de <laughs> dama am lu ma loo ko waxoon. la ko waxoon nag dama ko waxoon na ko li ma bëgg. ah. ma ci doy. muy lan. ma bëgg. Hmm. yàllaa ma ci doy. waaw. Ah. ndax mbir boo ko bëggee. koo ko mën a yaakaaree ku dul yàlla yaa ngi def erreur. Mhm. kon yàlla jooja nag ma yaakaar ci moom laa yaakaaraat ci bii bis. te bis bu ma mos a duggit slogan bi ku ne xam nañ ko ci sëñ Cissé li ma bëgg yàlla ma ca doy. waaye sabab leen nag waaye bu leen sukkandikoo yëngu ya. Mhm. sëriñ Cissé nag sabab nu la li mu war a def def na ko sama xel dal na ragalu ma fu ma jëm. Mhm. déedéet. c'est-à-dire dégg naa ak dóor mu daanu la yor moom. dóor mu daanoom yàlla na ko dal moom. yàlla nañ ko door mu daanu ci dara ju yonent bi barki dee mu am na ku may waxtaan ak mu ne ma dóor mu daanu gi da ko bëggoon a testé ci Balla gay Balla gay am sëriñ mucc fi mu toll nag bëgg koo testé ci Modou ma ne ko baam ñu koy def nu def ko ko moom hmm. maa la ko wax ah si pare na de pare na rek la ko wër de pare nañ jon waar nag dañ koo séddoo kan maag sit jon waar ak ñoo rek fal yaa kay sitaa ko moom sëñ bi fal yaa xam naa fa xam naa ñoo joor biir dëkk boppam ba daal laa duggagut Hmm. biir dëkk boppam ba. Ah, laa dugg waaw biir dëkk boppam ba daal laa dugg waaye lii il war ndox bi. Hmm. xam nga nag sëñ Modou man yàlla dafa ma dimbale dama bëri ay soppe macha allah. Hmm. bëri ay xarit te ba léegi sëñ Modou bu ma la waxee dëgg ba léegi damay wër di gëstu xam-xam. ba léegi damay wër di jàng xam bu nit ñi déggee may tudd dëkk yi. tudd dëkk yi li waral ma fay dem xam-xam sama baay da doon wax ne der na sol dàll ba siin. talabul ilmi walaw ba siina. jërëjëf jërëjëf. Mm. kon loola mooy waral sëriñ si ngay dégg muy tudd dëkk yu bari. Mm. yoo xam ne boo gisee mu leen tudd mooy ne dinaa dox ba yegg ci génn góor. toog fa di fa wut xam-xam. Mm. bu bis bu mag jotee nag dinaa la woo góor googa ca yeg ma jox. ne la bis bii bëgg naa nga jàpp ci ndax bis baa may toll noona ñoo jor boo fa demee wala januar boo fa sàkkoo xam-xam ñi mën nga ko andi ci combat luñ ma fa mën a jox ma indi ko ci bis bi. ah barki Moustapha. wóolu nga lool. ma ne ki ma doy loog ba am relation bu sérieux bi ma siq ak yow. xam nga nag am na ci saay-saay soo xam ne duñ ma jox dara ma jëfandikoo ko moom. wala jox ma dara ma koy indi sañ Modou. ndax ay wéyu la noo ki bandi. ndax fu ne la jaaree waaye relation bu sérieux. koo xam ne kii leer na ma ne li may wax nii. ayca nga ne ñime nga koo jëfandikoo. ñime naa ko jëfandikoo waaye ak i nitam dafa am ñoo xam ne siree wunu te dañoo foo nit ñu foo ñu nag moom nañ ma musal yàlla na ma yàlla musal si ñoom ci combat bi ndax combat bi dafa sérieux ci carrière Modou fi mu toll ndax lii dafa sérieux ndax fi mu toll Modou Modou bu daane si tey si te amul ci benn problème waaye am na loo xam ne du ma ko tudd nag xam naa sama bopp du ma tudd sama làmmiñ wi ndax Serigne Cheikh nee na loo bëggul mu dal la loolee bul ko tudd moo tax leneen moom buñ ko daanee amut ci problème eh. buñ ko dooree mu daanu amut ci problème ndax ñëpp nañ ne moo ko man waaye moo ko man jooja taxul sëriñ ci sa yaafus lu ma daan lambee nu ko raw dama koy lambee jiital ci borom bi nag subhaanahu wa taala di nga ñëwee saat xam naa ne daal fi mu toll épon laa waajagum ndax ah. génn gune guy taxaw sama kanam ah. waaye bu bis bi laajee ci sa sol xaftaan ñëw sëriñ ci sa dina def xaftaan ñëw Ah, bu mujj bi da ñëwoon nga bii man man laaj la waxoolu le bu mujj bi. ñëwoon bu mujj bi ñëw naa waaye daa am lu ma indi. Ah. daa am menn lu lu desoon ci combat bi lu war a ñëw te ñëwul. ma indi ko retourné avant ma yegg si lañ bëgg yàlla def ko. bi hit bu tollee foofa rek bu aajoo xaftaan bi ñëw kaala gi. Eh. dinaa ñëw. macha allah waaye maay xaar jaam yàlla yi moom ci kër gi. Hmm. ndax yéen ndugg su sew si. Hmm. bugguma dara di ci manqué ma koy seere incha allah. macha allah sëriñ bi am naa mbégte ak contentement jàkkaarloo yow ma bàyyi la nga tàggoo. Euh, kanaa di fàttali jaam yàlla yëpp sa bis bii nga xam ne la moom ñëpp di waaj. muy <laughs> le 16 fa tabarakallahu euh, muy sa euh, tudd bii ngay waaj. Hmm. ngénte gi sax ngénte gi ndax tuddoon noonu ngénte gi. fa tabaarakallaahu yalla yàlla def ci barke amiin amiin doom ji yàlla yàlla dundal ko te barkeel ko yàlla may ko xel ak jom yàlla bu mu laaj ci melow yaayam yalla bu mu laaj ci melow baayam ah, jaam yàlla yëpp nag man sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 16 incha allah kër sëriñ Modou Anta wasalaamualeykum jërë ngeen jëf